en 2011 combat yuñ fi def fi def ay jeunesse jeune yu fi décédé ay xalé yu ndaw man jour bu ñuy bu Mamadou Diop commissariat grille commissariat bu bu golf parce que xamna né période fu ñu combat bi mënon na am am na ñuy donc pour la que pour suñu réew jàppoon nañ ni suñu combat jamais de la vie kenn du xalaat taxaw une seule fois pour def troisième mandat du ci wax j'ose espérer que ne loolu du traverser le concerné j'ose espérer mais du ci wax parce que tollooguñu fof non tollooguñu fof parce que xol yi day y a eu combien de morts en 2012 c'est comme s'il crachait sur tous ces morts là tous ces sacrifices yu am durant toutes ces années Sénégal lu muy en matière de démocratie en Afrique et un peu partout Nous avons naan dañuy def il non faut arrêter

non quand on liggéey ministre d'État rek ministre d'État Sénégal il faut que défendre donc nous nous défendons seen ceeb ak sénégalais yi sénégalais yi régler seen problèmes. problème Ndiaye na dem fay rek puisque loolu ko ay n'importe quoi Abdallaï mais il commence à disjoncter nañ arrêter intérêt voilà